ilaha soxna Fama Mbaye sëñ Abdou Fatah Falilou ci àdduna bu xësee ba dugg yàlla génn ci yàlla képp moo nu fi bàyyi ak yonent bi ak sëñ Touba fayu ñu nu weer joxuñu nu añ joxuñu nu reer waaye reer ban nuy joxe ëllëg moo nu gënal fop ndax ñii ma ci àndal xaaj bi ñoo ma mag waaye dippi xale yi fi ne xale yi maa leen jiite at mi sëñ Fallou nelawee ci laa gënee àdduna waaye dama teel a sóobu ci liggéey Cheikh Mamadou Fadal bi ma demee ba liggéey bi dam ma bàyyi bu sa waajuru ki la yebal bi may ñëw fii jumaa ji man maa ci gën a nekk xale bi ma ñëw keroog bi ma ñëwee bàyyi waajuru kii dafa ree ni ma waaye yow xale nga ma ne ko damaa xamul bu may mag fu may fekk boobaag ma teggiwuma sama tànk fële lam daan wàcc toll ba fa laa daan wàcce maag sama mbooloo ba yàgg ñu ni jigéen dootu yëg ci soror bi ma wàccee baay bu sa nekk ca yaram ba woo ma ne ma waa kumba waaye nee na doot mu jigéen dootu yëg ci soroor bi dee leen yem fii ma dugg kër Serigne Saliou jooy fa jooyu metti ku ne wax baara soo wakkaana ak fekk ma fa ne ma yaa fa mbaay dangaa mel ne koy tuuri xéewal ma ne ko kaw gi dama koo tàmm sama ngone gépp fii laa ko jox ca nee nanu xale jigéen dootu ci yëg mu ne ma xaaral ma wutal la ay góor kera la ma wutal fanweeri góor ak ñett yuy yëg ci jumaa sëñ Ousmane Bousso man moo ñu ci dugal ñuy rafetlu rek liggéey bi parce que yéen a liggéeyal sëñ Touba ak képp ku bëgg liggéey rek soo dikkee fi rek a liggéeyal sëñ Touba te yàlla tax. day ñëw rek ci sëñ ci mbirum sëñ Touba bi liggéey bi sëñ Touba bi waaw mu daal di mu bindal la sa tur la sa tur nga dikk commencé ci liggéey bi nag. keneen koo gis ku na yow itam bëgg a bokk ci liggéey bi rek ngeen di ko ndax na xam ne mbirum sëñ Tuubaa moom du tuuti ñëpp ko bëgg. iré la rek ku ne nga bindu boo dikkee nga ñu joxe ñaari junni waaw mooy mooy daayira bi boo amee sa ñaar téeméer dugal boo amee sa ñett dugal boo amee sa ñeent dugal ba ba mat daal ñaari junni daal la suukaru score seet nee na tey ñetti ñetti téeméer la waaw yépp lu ci waay mën a def itam nga def ko ci rek te xam ne loo ci def itam wëccoo ko sëñ Touba nga ko defal. ñaar fukk ak juróom lañ ni laaj yi sëñ sa Moustapha daan laaj ci jumaay ji jotag ruu ñu ne ku ko joxe ñu tëyal la sa ruu ba déwén boo joxee ñaar fukk juróom ñu ngi lay foto photo bi ak numéro euh, euh, téléphone yi léegi nag saa yoo wàccee yaa xam li ngay joxe boo amee 1000 francs joxe boo amee mille joxe boo matalee nu daggal la sa passeport àjjana sëñ bi mooy yëkkati soxna Fane Mbaye wala soxna diw passeport àjjana ma ngi nii ñun ñi nekk ñëpp ku ne yaa ngi sa passeport àjjana nii la liggéey bi demee. waaleykum salaam wa rahmatulah. Fodé Diop laa tudd. ma yàgg a bëgg Serigne Touba ba may ko ne ba léegi dañuy def ndox sabu saabu ku ñoom ñu tax jox la ko dem yóbbu. waaw ñun dañoo jëm mag mënatunoo bale mënatunoo raxas nu faral nu nu farale noo ndox waaw waaw am na ñuy roote am na ñuy bale na ñuy roote ñuy joxe ndox am na ñuy tuure ndox. ñun nag mag ngi toog fii di maye ndox ci lan bokk Baye Bousso nag ma fi taaj man Baye sëñ Moustapha Bousso mii moo ma fi taajoon ndax dama doon root di root di root di root ba sonn mu ma ba ma ñëw mu ne ma noo tudd ma ne ko ko jóob laa tudd mu ne ma toogal fii di liggéey Sëriñ Tuubaa boobu ba tey nag maa ngi sant yàlla léegi mu dem ci ñaar fukki at xanaa. yàlla ci taa defal lan bëgg ndax murit dof la ah mu naa murit moom ñun ñëpp rek dañuy murit yal na yàlla suñu taa defal lañu bëgg ñun ñëpp bokk ñun ñëpp rek. xanaa liggéey suñu bàmba rek chaque di bale bu ñu balee alxames alxames ñëw bale. sant yàlla ak sëñ Touba rek ak seex Sow bu Mbacke sëñ Cheikh Sow na bu say say say sunu sëriñ di sant yàlla rek fa si yéene nag jublu ci liggéey sëñ Touba bi baykat bu dëggee ca bu leen laa waaye fas yéene nag ñëw nag di bayal sëñ Touba nag fas yéene yàlla yeggaleel ma ko ndax man dëgg maa sax sëñ nga ma xóotee ko ñaari fan yi dong laa ñëwagum di sant yàlla rek parce que yéen a nag bokk ci magu bale wi rek liggéeyal sëñ Touba de sama ci sama dund ndax mag laa te bale si jumaa ji rek moo ma ñor fi moo ma intéressé. doole da ngay ànd ak yëg-yëg fi mu ne nu jéggal ma kii ci sama jëwriñ yi la bokk léeg léegi fi mu ne wóor na seexul xaddim ni su fekkee ñëw nga cay wax waxi jumaa yi ci danaa la mën a comprendre waaye su fekkee ñëw nga dugg feneen man la sëñ bi soxna si leen liggéey rek continuer liggéey. soo duggee feneen man la soxna seneen liggéey nga kii ko kii du ma tudd am na koo xam ne bari ki démb euh, weer wi jàll dama ko bëmax ba mu daanu yëguma ma door a xam ni gaañ naa ba gisuma ko baal ma ndax boobu mi ngi ñëw di ma wax feneen ma ne ko nan continuer liggéey gisatuma gisatuma mu ne ah soxna Fama nuyu la kii de ma ne ko nuyu naa ñëpp waaye dimbali ma ngir yàlla nu continuer liggéey bi parce que fii dafa am góor ñu fii fanaan ñoo xam ne duñ tudd seen bi mu demee ba nu séddee ma ci kaw ci suuf ba mbooloo mi bari lañu ma séddee léegi li wër soroor bi yëpp may dem ba barabu suñu fa kon nan continuer liggéey bi bi mu duggee ci domaine adduna nag laa ko fekk sànni ko ne ko gàññax foofu la may fekk foofu liggéey bi la may fekk ma boole ci beneen liggéey itam muy daayira maam asawaalo waajur soxna jaara man maay nit ku ñuul ki ko njëkk a yëkkatal daayira ci adduna su nay tubaab bi xamu cooyu laa ko boole laa maa ngi ci ñeenti téeméeri nit ak lu ci maam astawaalo bak sa baa ngi nii muy jumaay jëney liggéey ca naawel ndayale ma ko gaa yi sunu wàccee fi mu ne danaa leen laaj teg teg bi danaa na ko teg ba ticket bu nu dagg 10 000 pour lu jëm ca jumaay ja bu jàllee nu daggaat 10 000 jumaay ja sëñ Muntaxa barki dem bi waa bitim réew amee problème ay milliards la fa yebal waaye lu tax mu bàyyi maag jumaa ji xañ na moo xam li mu ci bëgg ñaanal ma ma dund ba joxe caabi jërëjëf jërëjëf